di sëtu cheikh amadou bachiru ibnu xaadim rasul ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi ak mbokki julit yépp boo gisee ñu def déclaration bi mooy dafa am loo xam dañ ka gis teg ci suñuy bët yenn yi ñu dégg ko dégg gin bi woo xam ne nañu te lépp loo xam ne la loo xam la rafetul ci déggin rafetul ci gis-gis loolu mooy lan mooy yàgg naa génn di wax wante saa bu ma waxee ñi nga xam ne nangu nañ dëgg te doon ay taalibi te yaakaar Serigne Touba te amuñu lu ëpp Serigne Touba ñooñu ne nañ nangu dëgg gi nga xam gi dama koy wax te ñoom ñu lot si mën a génn di ko wax ña sa ëpp solo nag mooy taalibi Serigne Touba yi nga xam ne dañoo jaayante ne ñenn ñi seen maam jaayante woon ak Serigne Touba ñenn ñi seen maam jaayante woon ak doomi Serigne Touba yi ñu doon ay ndaw doon ay waxa waxaan ay waxambaane jël seen lépp jébbal sëriñ Touba te Serigne Touba ku ko xam xam ne liggéeyal na yàlla ba yàlla defal ko loo xam ne defalu ko kenn. ginnaaw rasulullahi sallallahu taala alayhi wa amuñu ko ëpp Serigne Touba te Serigne Touba rek moom lañu yàlla booleel fii ci àdduna ñu fas yéene ànd ak moom ba yomal xeyam yàlla na yéex ñu gis ne am na ñoo xam ne suñ daan wax ñoom lañ bokkal sëriñ bi ñu bokk ci njabootu Serigne Touba wante ñun xooluñu loolu lépp dañoo jël lépp lu ñu am ci Serigne Touba yàlla defal ñu ko ñu jëndee ko ab taalibe te loolu la ñuy fas yéenee ñaan yàlla ba keroog ñu fi jóge duñ gisee loo xam ne nag taalibe yi lott nañ ci génn seen kàddu wax ko ñu koy ngurnguni ci suuf di ko waxtaanee ñun ñu bokk ci njaboot gi yàlla def na suñu kàddu mën a jóg war nañoo mën a bañ a téye suñu làmmiñ bañ a yëg wax taalibe yi ak julli yi li nga xam ne day am ñu koy nëpp nëppal ci suuf te duñ nangu kenn génn ko ñun nag bokkuñ ci ñi nga xam ne eh, dañuy gis dëgg ba noppi teg ci seen tànk wala ñu xool intérêt seen personnel bi ñuy am ci ñooñu moo tax duñ nangoo wax yàlla suturaal nañu bokkuñ ci ñooñu lay ma say jiital mooy dafa am yàgg naa kaa dafa am ay ñoo xam ne nee nañ ay sëtu Sëriñ Tuubaa ba noppi nit ñi xam leen ñu doon ay lobby yoo xam ne ñu ngi doon ay tu ñu ngi nekk biir lëbu yooyu ma daan ñàkk ma daan yàgg wax nag loolu dafa nekk biir tubaa te sëñ tubaa ku xam Serigne Touba xam njabootu sëñ Touba yi nekk nañ fi ba jóge fi yoon wi ni mu tëddee tey si ñoo xam ne leer na ne ñoom seen bopp personnel moo leen yëkkati wante liggéeyal sëriñ bi ak sàmm li taalibe yi di dugal addiyee ji di ko dugal fa nga xam ne moom la seriñ bu bëgg nekkuñ ci guddi nekkuñ ci bëcc ñoom daal nañ doon def seen lobby boo xam ne. dañuy wane ne Serigne Touba moo leen ñor te Serigne Touba ñoru leen lañ jiital seen li leen ñor mooy seen intérêt personnel seen intérêt personnel dara weesu jiitu si lu dul ñu tabaxee ay étage jënd ay oto yu luxe di rombi taalib yi nga xam ne ñi ngi jaay gerte ñii ñu nga gis ñoo xam ne leen yàlla wërsëgale ñu jaay ñu nekk nga xam dañuy jaay ay gerte ñu yàlla wërsëgale ñu jël seen ñaq nga xam ne lu mu gàtt gàtt gàtt seen wërsëg bu doonee juróomi dërëm sax dañ koy jaayante. yëkëti ko jox serigne touba ndax serigne touba jaral na leen ko ñooñu nak bu fekke dañoo dajalé seen ñaq jëmele ko ci dëkk bu tedd ba ngeen jël xaaliss bu def ko seen intérêt personnel bañ ka defal li ko Serigne bu bëggé ci dëkk ba talibé yi tek seen bët loolu dafa ñaaw dafa rafet la ma siy jox misal moy ki fi nekkon xalifa ci Serigne Touba ci kaw suuf te Yalla def mu bayé ko fi muy Serigne sidil Mokhtar Diko ñaanal Yalla nako suñu borom dolli ay leer ci barsàq te yokk ay martabaam barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Sidil Maxtaar ñëpp xam nañ ne dara ñoru ko woon lu liggéey Sëriñ Tuubaa guddi ak bëccëg si la nekkoon di ko soññee di ko wax guddi ak bëccëg am ñoo xam ne ay lobby lañ ñoo xam ne ñoo fi nekk tey doon groupe boo xam ne ñëpp xam nañ leen ñu doon ay ay nit ñoo xam ne dara taxu leen a jóg lu dul soboote liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi dañoo juum nag ndax liggéey Sëñ Tuubaa kenn mënu kaa saboté ñoom seen bopp la ñuy saboté ndax nit ñu bëri dañ leen jéppi ñu nangu dëgg bokk ak ñoom Tuubaa xam leen bu baax dañ leen jéppi la si jiitu mooy Sëñ Sidi Moxtaar su ñun suñu takk jël na si alal joo xam ne def na ko si liggéey yi nga xam ne sumb nañu ko te ba tey àggut ba fi nekk si Sëñ Sidi Moxtaar jógee bëggoon kaa indi yàlla dogalu ko seen yéexaay ak seen yaafus ak seen ñàkk man-man ak seen ñàkk gis-gis ndax foqale gu rëy goo xam ne dab na leen ñoom moo tax liggéey boobu àggut ba Serigne Sidi Mokhtar jóge fi yal na ko yàlla dolli leer si barsàq gee mu nekk ndax moom liggéeyam wàcc na te wàccaale na yenn murid di nga xam ne jël nañ seen ñaq jox ko Serigne Touba ndax 21 milliards yoo xam ne Serigne Sidi Mokhtar lañ jëf lañ def ñun ab takk te gëstu ko def na ko si liggéey ba sa jiitu mooy ñaari sóoróor yi nga xam ne ku dugg Touba da nga koy gis Serigne Sidi Mokhtar amoon yéene liggéeyal ko maamam jooju Serigne Touba def ko si néegu suñ borom bi muy jumaa ju màgg ju tedd jooju nekk tubaa liggéey boobu si Sidi Moxtaar dana laaj fan la toll ñu koy soofantal di ko yéexantal ba gis nga liggéey ba fa mu toll boo duggee tubaa da koy gis baton kese sa nekk ak ay feer ba sa topp mooy guy Masalik bi nga xam ne daan naa ci wax. liggéey ba sooxe sëriñ bi di laaj kan lañ ko intégré am na at moo xam ne sëriñ bi ba mu ñëwee dañ ne woon da koy intégré ñoom ñooñu may wax dañ doon ay lobby yoo xam ne dara ñorul leen lu dul yàqal yoon wi ngir di gàccaal yoon bi guddi ak bëccëg boobu fekku leen fi sax ba fi sëriñ bi di ñëw ba tey nii jumaa ji bis bu yàlla sàkk ñu joxe dat li ma si gën a metti mooy ñu taxaw ñu wax leen ne leen wax leen li fi dugg si alal ñu ne mënuñu kaa xayma kon loolu naa fekk ak bëgg tappale mënta weesu loolu ba tey nii waxe yow ak yeneen xaalis yoo xam ne def na ko biir Tuubaa la sa jiit la sa topp mooy fee ñu war a jullee it di ko fa eh, sëñ si mu nekk si si penku jumaa ji ba tey nii boo demee dañuy gis ma ngi si sànc ak yeneen yeneen yeneen yoo xam ne mu ngi nekk di Tuubaa Sëriñ Sidil Maxtaar amoon si yéene pour mu àgg ba indi ko gis nga tey may laaj taalibe yi ak ñi nangoo dëgg ndax Sëriñ Sidil Maxtaar yàlla def na mu nekk fi liggéeyal Sëriñ Tuubaa si kaw suuf liggéey bu rafet ba jege fi indi wu dara ñu ni nag yàlla dañoo boole si njabootu Cheikh Amadou Bassirou kum kum lenn loo xam ne dañ koy jël di ko wanewu kër si Amadou Bassirou lu dul ab taalibe ndax moo ñu ñor tey moo ñu ñor ëllëg moo ñu ñor ba keroog ñu fiy bàyyi ko li ñuy bañ nag mooy dañoo am ne koo xam ne ñëpp ko xam tuuba si yaafusam si ñàkk gis-gisam si ñàkk vision muy Abdou Lahad Ka te xam nañ ne lépp loo xam ne biir Touba sooxe na fa si wàll assainissement si wàll si si wàll mbali ji si wàllu wàllu taxawaay làmp yi di leeral ndax mairie bi moo si war a taxaw defu si dara loolu ñi dëkk Touba te ñeme dëgg te amuñu lenn loo xam ne ger nañ leen ko ñooñu nañ nangu li may wax ñaareel bi mooy Abdou Lahad ñoo ngi ko jox université boo xam ne jëm ñaaji bii lañ ko joxoon ba tey ni wax ak yéen àggul loolu nit ñi war nañ see def eh, am njàngat bu baax a baax rawatina président de république moom it loolu mu def si njàngat ndax loo xam ne dañ kaa jox koo xam ne ak aggut jam ñaajo bii mooy université boo xam ne xaalis ba kenn xamul fu mu ko dugal ñu taxaw ne dañuy def appel d'offre wa defuñu appel d'offre li ma gën a métti mooy appel d'offre man yëguma ko tinuma ko wala bu ñu ko defee dañ kaa dañ kaa patam patamee def ko si université bi nga xam ne ki fi nekkal Serigne Touba si liggéeyam première liggéeyam mooy ne dañ defar daara joo xam ne xale yi dañ fay delluwaat mën a rafetal seen xam-xam mën a rafetal seen nekkin muy yar wi kon kooku bu fekkee dafa jël université bu di nga xam ne fële sëñ Abdoulaye tabaxoon ndax ñëpp xam nañ sëñ Abdou Lahad Mbacké si ni mu bëggee woon xam-xam ak ni mu ko ni mu ko yitte woon Serigne Mountakha ñëw feddi li loolu di ko di bëgg faa tabax université boo xam ne da ciy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal ci mbébatu magam yu baax yi nga xam ne ñoom la wutu tey nekk Serigne Touba muy tey ñu gis ne bañ ko de bañ ko bañ ko waxee ba tey ñoom yàgg nañoo yëg di leen chiffre ñu koy ngun ngunee suuf di xool nan lañ mën a récupérer université ñoom seen biir lobby boobu pour mën a récupérer sa euh, pour cent yi ba bu ëllëgee ñoom seen i mbir da siy defaru wante du mbir moo xam ne da leen a yitteel pour mbirum sëñ bi ñu leen di wax nag di leen avertir di leen artu ne la woon nañu wal ni na ndax ñun duñ may kenn koo xam ne dana saboote liggéey bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa moo ngi koy sumb di ko liggéeyal Serigne tubaa di ko liggéeyal taalibe yi pour ñu ñëpp ñu am ci ngërëmul Serigne Touba la si def mooy dañoo fexe ba jël ngon-ngon ka dooleel Abdou Lahad Ka ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne ka dooleel Abdou Ka moom ma nekk Touba lu mu wax ñu ne gonga lu mu wax ñu ne noonu la te kenn du ko saytu kenn du ko kenn du ko xool loolu nag lu ñaaw la si dëkk boo xam ne ñëpp ay njabootu Serigne Touba lañ ñëpp yor nañ seen xam-xam yor nañ seen xel yor nañ seen i bët yor nañ bu baax a baax a di gis di gis loo xam ne jaaduwul guddi jaaduwul bëccëg Abdou Lahad Ka nga xam ne dafa télé guddi télé bëccëg ñu koy jox université boo xam ne 37 milliards. bu bërki démb maa ngi dégg muy wax naan liggéey bi danañ ko waaj dafa am lu si lu si xaw a manqué moo tax tàmbalee guñ ko ba tey indi fa ay naaru turki yoo xam ne kenn xamul fuñ cosaanoo ñëw si si si ibbite ba pour pour gëlëmal nit ñi seen i bët xamal leen ne ñii ñooy sama partenaire yoo xam ne naa ànd ak ñoom liggéey liggéey bi te man mosuma gis fu ñu ne Abdou Lahad Ka moo tax moo tax moo tabax e, cité bi wala moo yor société bi mosuma ko gis te mosuma di nit nit di ko waxtaanee. ndax bi ko gën a të rek mu ngi nii jëm ñaaju président joxoon ko ko te gëm naa ne loolu bu ñu ci defoon enquête danañ ko nangu jox ko keneen ko xam ne dana ko a àggaleel état bi kon nag nañ xam ne ñoom bu fekkee dañoo nekk seen caaxaan yooyu ak nekk ñoo xam ne dara ñoru leen lu dul seen intérêt personnel nañ xam ne ñun pare nañ pour jàmmaar ak ñoom xamal leen ne leen lépp loo xam ne ñu ngi nax taalibe yi wala ñu ngi furuj alalu taalibe yi rawatina yi nga xam ne dañoo jóg pour volontaire pour liggéeyal Sëriñ Tuubaa doon ay taalibe yu mot sëkk te gëm Sëriñ Tuubaa ñoom ñu taxaw ne temm loolu dafa am ñun nanañ fas yéenee taxaw ne loolu nanañ ko dénoncé nit ñi dégg ko xam ne ñu jubadi la ñoo xam ne dara ñor leen lu dul luñ leen jox rek ñu def ko seen bopp la sa jiitu mooy ñoom si boppam war nañoo xoolaat seen bopp xoolaat seen bopp mënta weesu mooy ku fi nekkaloon Sëriñ Tuubaa muy suñ suñ Sidil Maxtaar nekk na fi ba jóge fi inégréwul dara te liggéey bépp ñoom ñooñu lëbi yooyu ñoo ba ma siy teg mooy am na juróomi personnel yoo xam juróomi personnalité yoo xam ne kenn ki ñëw na si mun Mountakha doon ko wax liggéey bi moom yéeneem gi mu si am ak ñeenti ñoo xam ne mën nañ ko see jàppale si université ba mu ko yebalee si ki nga xam ne moom laa wax mooy ngem mu ñoom Abdou Lahad Ka te ñëpp xam nañ ko kenn nangu Touba ndax xam naa la fa nekk dafa daw bu baax a baax foo ko tuddee rek ñu ne ñoom ñëpp daal di génnandoo jël seen i téléphone jël télé yi di wax loolu moo nekkul dëgg moo nekkul yoon si réew moo xam ne ñëpp xam nañ la fay dox. man nëbbatuwuma làqatuwuma kooku bañ demee ba ñëw ñu demee si moom lam leen wax dana leen dem leen na ngeen na ngeen déglu ma bañ defee seen i ak seeni i pexe lañ jël université bi jox ko Abdou Lahad ba dem wax ko sëriñ bi sëriñ bi nag lam am mooy bi ko waxee na ko lii mën nañ kaa liggéey moom lañ fi am mooy nekkal Sëriñ Tuubaa fexe ba lépp lu mu bëgg liggéeyal Sëriñ tubaa mu mu mu àgg sa nam ko bëggee taalibe yëpp teg seen bët te ñëpp am si ngërëmu Sëriñ Tuubaa kon ñoom seen ngor ak seen dignité waroon nañoo rus sax di laajaat liggéey bu toll nii di 37 milliards ñu leen koy jox te defuñ ci dara ndax liñ leen yàgg jox dara ñu dara lañ ci defut ba mu mooy liggéey yii ma leen wax muy ñaari sóorar yi ak guy ji Jinaan ak hôpital bi nga xam ne jox nañ ko 5 milliards génn na si te ba tey kenn xamut fu hôpital boobu nekk boo fa demee ay seng nga fay gis mu mel ni almer ci Touba kenn xamut fu mu dugg ñu naan ay doomi soxna lañ di laaj ay commission ñu bëri nag dañoo doon ñoo xam ne ay naa naafeq lañ naafeq mënut a weesu nag nga nekk ne sëtu Sëñ Tuubaa nga xam ne lépp lañ la jox pour askana Tuubaa nga daal di koy lekk def ko see compte def si nu la neex nga jàpp ne ni duñ la wax dara man nag nëbbatuwuma ma li amoon wane na incha allah rabbi am na yeneen yoo xam ne xam nañ ko te buñ demee ba si biir danañ leeral ñi nga xam ne dañ fay nekk di mbubboo Sëriñ Tuubaa di mbubboo addiyee taalibe yi di ko lekk te duñ defal Sëñ Tuubaa dara ñun nag ñu ngi sant taalibe yi di gërëm taalibe yi di leen xam ne dee leen Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa dong fi nekk ñeneen ñi fi nekk ñëpp di xoggaliko di sol ay grand boubou di sol maxan dañ leen di dóor di lekk seen xaalis rek wante gëmuñ Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf